ñu di leen jaar yéen ñi ci Fran Sport ñu war a ñëween ci benn vidéo euh, wax ci benn euh, Sadio Mané bi nga dem ne démb max bu réeréel def max ba mu def na mu tomateeg waxu yi nga xam ne xëy daan ko ci Sadio Mané ci capacité bi am ak ci nan la Sénégal war a mën a ba Sadio Mané dox kon ay bay euh, tey dëgg tey jamono jox na la région mais laata loolu dañu wax ñi ñi ci page bi ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour ngeen seen ay vidéo taaral fii ci Fran Sport bu ko defee nag ñu ne coppet na diis nànk ñëw ci kàddu yi nga xam ne mooy kàddu Habib Beye yu mu wax ci saa ne Sadio Mané boo xam ne am na capacité pour moi def lu ma ci terrain mais nag mi ngi base ci ndi ko course ne xool bi nekkee Colloque ak na ko pointé te na ko ñaari yëpp football na ko diis mais ne fu mu ko teg Sadio Mané day loolu day war a ne ne équipe bu suurewoo am style de bi bu nekk grand joueur foo ko teg mu dox démb lu nekk ci mag Sénégal bi malgré ni ma dox premier bi doxewu ko mais gis na boo xam ne Euh, dox na ndax dugal na bii dugal penalty daf benn longue passe boo xam ne Ismaïla Sarr moo mbëkk waa Bruges dafa contre Sochaux kon démb saa yi bu dox 100 pour cent na note 9 jëm kaw kon démb mën nañu wax ne bu wax kenn ndax ñëpp ñun ñëpp seen gis ngeen lim def jël ay responsabilités am Sadio nga ñu gone gi sigil nga ñu dëgg fa yàlla xool yëpp sedd nañ ci yow franchement ñu doon tiit ak dénk teew naan xale bi xaaraa màgget ak day bëgg a jeexal wan nga ne ne man damay toog Europe pour am lu xeex ba kanam yéen ñi suivre sport abonné commentaire partagé xaar yéen vidéo yéen jàggat merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax merci merci